kontaanoo tu ñuy suivre seen site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte a kontaante comme ni ñu leen ko defalee saa dañ leen koy defalee saa su nekk gis ngeen bi jural leen na leen direction ñi nga xamante ne nii moo di bi Papa Sow di départ gis leen ambiance ambiance bi nga xam ne moom moo xewoon aussi si li nga xamante ne nii moo di buntu këram ñun waa Wassare Lamb nag nii la ñu koy defee saa su nekk ndax dañu koy faral di wax nag seen mbégte mooy suñu yittee ba tax li ngeen di bégal dañu koy xool rek di leen ko def nee leen combat bi dara du leen ci raw dinañ leen jëlal avant dinañ leen jëlal après waaye ki ñu toogal nii nag dafa nekk ki nga xamante ne nii papa la mooy papa ki nga xam ne moo di Papa Sow dañu koy nuyoo bu ko defee ñu daal dugg si waxtaan bi papa nuyu naa la. Euh, maa ngi lay nuyu ma fii. maa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax a baax tur bi nan la. Ali Sow. waaw. Mhm. papa tey ñu ñëw fi nga xamante ni moo di sa kër fas yéene seetaanandoo ak yow ni moo di làmb ji naka nga ko gisee. waaw d' abord maa seen déplacement bi choisir kër gi fii ñëw choisir pour vivre ak ñun combat bi mhm. ah loolu dañ ci seen rajo bi nu mu tuddati ah wasaare lamb ngeen ñëw di ko wasaare fii si kër gi boobu fa bi yëpp a ngi leen ci remercier mm-hmm. d'accord gis nga sa doom bi mu nga xamante ni moo ngi koy jubali fale sa stade dafa si yéene bëri ak ki nga xamante ni moo di Siteu naka o ko gisee dara bëri rek comme bëri fi passé woon rek mënul passé bëri mënul passé lamb mënul passé lamb quoi mm-hmm. ah, day am nag lamb yoo xam ne day rythmé mm-hmm. rax am ay xam nga yenn saa yi dër bi soo demee sax ci pays européen yi day am équipe yoo xamante ne toujours rek seen daje dafay nekk derby bu mag alors euh, bu lu nekk sax doon na ci xew dans les temps Marseille su doon dajeeg France fii mais kenn mënu la wax dégâts yi doon am alors mais loolu yëpp nag avec le marché de temps wàññeeku na waaw loolu moom mooy kii sarmu sport la euh, ñu yemale ko ci cadre sport rek daal moom moo gën. Mm. d' accord d' après bi nga gisee ki nga xamante ni moo di Papa Sow naka nga ko gisee ci côté liggéey bi ak loolu. non ça va euh, liggéey na entraîné na comme ni mu war a entraîné euh, vraiment li mu war a def lépp ci combat bi def na ko fi la fois passée aussi ñoom ñëpp na ñu woon soo leen gisee ci làmb ji nga xam ne ñii liggéey nañ kenn ci ñoom amul droit caaxaane combat bi ci sa carrière mm. donc ñoom xam nañu dayuwaayu làmb ji. mu nekk làmb joo xamante ni seetlu nañu ay jamono tegoon nañu ko fii mais dafa mujjee woon dañ ko mujjee woon année léegi ndax problème bi nga xamante ni xewoon na fi naka nga gisee loolu ak tey ndax jàpp nga ne làmb ji tey dina continuer ci jëlee ay xam nga euh, toujours rek événement bu nekk rek def lay servir leçon mm-hmm. euh, xam nga expérience moom amul benn école bu koy jàngale da nga koy vivre mm-hmm. kenn du ko jàng da nga koy dund rek mm-hmm. dund ko romb ko su ëllëgee nga xam lii la mais kenn mënu laa jàngal expérience kenn ah, donc euh, lii am na làmb ji noonu la ñuy liggéeyee parce que ñoom dañuy créer règlement yi nga gis ñu créer ko yëpp tirage bi ñuy def yëpp ah, dafa am fu mu jógee par exemple soo soo gisee tey mbër yi bu njëkk dañ doon xëccee ne man penku laay jublu kii ne penku laay jublu il a fallu que événement bu dangereux am ci diggante ball Baboy ak Moustapha Gueye alors bi événement boobu nag amee boo mu am conflit ñu réglé ko ca la ñu waxee ca la ñu jëlee nag ne nañuy def tirage léegi soo gisee tey mbër yi dinañu am au moins deux mètres cinquante seen distance au minimum bala ñoo soufflé c'est parce que bu njëkk dafa amoon ci diggante Baye joon ak Gris ñu dem ba jegewoo avant arbitre bi dor kii dóor ko mu indiwaat dégâts làmb ji yàqu ñu jëlaat encore si initiative et cetera et cetera affaire yi noonu rek la demee di màgg lii tam erreur bi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla façon bu mel ni moom euh, bi mu amee aussi il faut ñu xam ne euh, expérience manqué na parce que jamono Alioune Sarr quand même pour am na yoo xamante ne kenn xalaatul def ko ci jamono moom su doon moom moo fi nekkoon loolu du am mais lii nag. Euh, négligence su GNC bi organisateur yi la soo gisee ba mbër dem ba mën a jote ñoom ñoo créer li tax loolu waaw mbër mu nekk danga war a am sa zone soo amee sa zone nga nekk fa yaag say waa kër ak say tëggkat mais suñu jóowee jël tëggkatu papa yóbbu ko cummekaayu si te jël cummekaayu si te indi ko ci côté bi fii ñii am nañu compréhension euh, parce que ñoom géwélu bañ Ndakaaru lañu yàgg nañu tëgg làmb mooy waa Sangsang depuis jamono madun xuleeg fal ak ñoo fiy tëgg mm-hmm. famille bi dañ ko donante mm-hmm. ñoom doon nañu accepter Siteu ñëw ci seen camp def li muy def ci ay ndëndam romb leen dem jotawuñu moom dara mais ñoom ñële nanguluñu loolu papa mm-hmm. te nag mbër li mu tàmm mooy sportif day def mise en train am na zone buñ ko réserver zone am la am na droit amul nag benn doomu adama bu ko naan doo fi mise en train parce que ñun ñoo fiy tëgg loolu moo indi problème bi doo fi mise en train doo fi jaar pour joxe say sarax loolu rek la mbër mu ngemb nag euh, xam nga mbër soo xese ba ngemb takk si ngay takk yëpp naan yi ngay naan yëpp daanaka rek c'est un demi fou mbër bu ngemb booy dem ca làmb c'est un tout ñuy naan li ñuy takk dafa bari donc nag parfois da yem am arñe boo xamante ne yow loolu sax du doon sa jikko parce que papa mosul xeesi làmb mais nag joxe sa sarax nit ñi bëgg a jàll di lem di saraxe ji mm-hmm. ña ñu sant ñu saraxe leen ñooñu la ñu jox sarax si mm-hmm. léegi moom mu ñëw ñu ne ko yow doo fi jaar saraxe ji mm-hmm. yow tëggoo làmb doo dara géwél nga bu ñu indi pour nga tëgg làmb ah mais da nga war a gérer rek say tëgg yow nga war a def journaliste bi gérer micro ak caméra bam mais amul affaire ak athlète bi du du du sécurité du policier du gendarme. donc amul droit ci kenn loolu mooy indi problème bi. d' accord jàpp nga ne combat bi dina dina yomb ci diggante Papa Sow. aussi ko diggante Siteu parce que njool la ak ndaam. non xam nga yomb yomb dafa yaatu. Mm-hmm. xam nga combat mun na gaaw lool te jafe. parce que komba bu gaaw te ngeen dóorante gaañante. Mm-hmm. alors euh, bëre euh, maanaam deux minutes yu fatat traj mm-hmm. bokkul ak ñu léewtoo dix minutes te defante wuñu dara. waaw loolu moom euh, loolu taxul combat bi yàgg na mais taxul mu metti mm-hmm. Mm-hmm. ñoo ngi léewtoo fuddu defaraat say téere fuddaat ba ba temps bi jot ñu soufflé nga dem mi-temps mm-hmm. alors kooku taxul ñuy wax mais ñii xam naa ne doñu egg foofu ñii ñii c'est des combattants ay attaquants lañu euh, c'est pas des tricheurs wax dëgg yàlla ku ci nekk xam naa ne di nga remplir sa contrat te su kenn remplir sa contrat rek lamb ji day jeex. Mhm. d'accord bi nga sa doom mu jubali fële sa stade bi nga hmm. a jëli li nga ni moo di ndamam ndam li ni ma ko. li nga wax la li nga wax la jëli ndamam <laughs> de juumaloo. <laughs> ñu mënul génn Sénégal ban ban yëg nga am en tant que papa. mu doon génn. mu ndam li warul génn mënul génn Sénégal laa wax tey bi ko ñaanalee. ak ñi nga moom bi ban yëg-yëg nga am en tant que papa. waaw ndam li moom Sénégal Sénégal Sénégal euh, ndamu Sénégal la waaye nag am na foo gis rek am na fu mu dëkk mm-hmm. ah, ñun tey dañuy ñaan ndam li dëkk de Sénégal ko moom waaye na def baasam fii ci parcelle mm-hmm. ndam bi ñëw fii parcelle la ñu ñaan yàlla mm-hmm. waaw ñun dañuy ñaan yàlla tey yàlla may ñu ndam. Uh-huh. d'accord kàddu gu mujj gi daal daal balaa non non non ndam euh, maanaam kàddu gu mujj kay xam nga jobot moom mooy jobote ñëpp rek. soo man mii ñii ñëpp yéen ay morom ngeen samay sët ñoo fi nekk ak samay doom yàkk la famille kii non non fii la famille Sow tout le monde uh-huh, ñëpp ñëpp c'est la famille Sow tout le monde loolu donc tey li may bëggee ñi mucc nekk ci jàmm ñeneen ñi dem jóge ci yeneen kër yi noonu laa leen bëggee ñu ñëbbi seen kër son et so leen dara jot yàlla bu kenn gaañu bu kenn gaañu la yàlla bu kenn alalam yàqu yàlla na ñëpp ñibbeeg jàmm bu kenn fokkastalu bu kenn xeex sax te kenn warul xeex na foo la sport la yaa ngi dégg suñu paree war nañu ànd ñaari mbër yi kii daan na kii kii daan na kii nañu ànd waxtaan non non waaye yow danga am sens rek waaye nangam mais na naroon laa daanu waaye jabal loolu yàgg na fi te fa lay mujj suñu demee boo xool les anciens association yooyu ñu def mbër yi ñoom mànga de ñoom gaa yooyu seen combat gënoon a métti foofu ñu doon reyante mais tey dellu si nañu nekk benn nit former seen association ku ci feebar ñu defee cotiser xaalis ñëw toppatoo la lu ñu mën dinañ ko def pour faj la ku ci am rëq-rëq ku ci dee ku ci def lépp dañ lay taxaw donc nañu xam ne foofu rek lay mujj waaw. mu ne. ma ne kon ñu seetaanandoo làmb ji rek ba xam lan la ñuy indi. waaw mais nag yow nag dama laa waroon a jox kurus ah. waaw nga ñaanal ma parce que man dama ñaari sama ñaari doomay bëre de. rakku papa dëkkul fii Kaolack la dëkk mais kii kala ni kii Siteu la. gàddu nag lan la. ah fii. waaw ah, dama laaj li mu lan la. waaye kii de saa waaye su ma ko amoon ci sama xarit dina baax de lii daanul kenn nag moom yii non il est na Siteu Siteu liggéey na liggéey na bu baax a baax a baax a baax a baax naa ko soo xoolee liggéey na tànk yi waaw vraiment xool ko kii liggéey na de mhm. Siteu liggéey na il est liggéey na de. mbaal hmm? mbaal hmm? la yore. ah dafa dafa dafa laal morso. da def lu ko kii dara gis nga lii ak mbaxana ñaare man mbëri may gis ñu def ko ñaare dañuy ci ëpp kii yàlla na ci bokk kii yàlla na ci bokk d'accord ñu bàyyi ba si kanam ma xool Siteu waa Siteu nag indi na état de wax dëgg yàlla ah ah non mystique bi kay taxul ñuy wax moom mystique bi moom séeréer yi moom ak mystique moom mooy loolu ah, dañ ko ah non seen mbir la dañ cee yàgg cosaan la. d'accord papa kon ci ba si kanam.